mbokk yeeg xarit yi teew lu solution TV solution info mbekk la ñuy am comme niñ ko baaxoo di defee altine bu jot ci wax waxtu wi lee ngeen ñëw nag fas yéene ànd ak ñun euh, ci émission bi lee di l' émission des émissions nga xam ne daañu ciy àndal saay su nag ak Alaaji Njogu Meng euh, tey jii nag ginnaaw bi ñu nuyoo mbooleem euh, internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel noonu la ñuy xuusee rek dem ba fële nga xam ne moo ci diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport leen ziar leen sargal leen ñaanal leen. jàmm di ñaanal itam sëriñ Sidi ma sëriñ Abdou Lahat mbàkke yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu moo ndak ak defal ko jàmm defal ko njaboot gi wasaare ko ci biir këram te koy ñaanal mboolem xalifi ci biir réew mi yëpp ñii seetaan ci biir réew meek biti réew ñu ngi leen di nuyu ñoom itam di leen bàyyi xel bu baax a baax nuyu nañu euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf di gérer technique bi moo ab Diouf Abdoulaye jàlloo ak ki di du topp nuyu itam ndeya son yi bu na Mbaye ak Omar Boun Khattab Gueye ñu daal di koy bàyyi mu nuyoo kentonot yi ñuy suivre moom Ndiogou Mbengue alaa ci kàddu gaa ngi noonu ma jigéen ñi ngi lay fay di la ziyaar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow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 fu waay mën a nekk di am ci ñëpp mbégte ak kontaante jërëjëf. nuyuwaay leen le meilleur chroniqueur de tous les temps. kooku la. kenn Alaaji ah. ay war ngaa toog fi di ma laaj kan mooy le meilleur. non kon nag may wax deuxième bi ku jël pee am na deux léegi na wax kan mooy deux moom bu la mënut wax kan mooy deux deuxième rek <laughs> nga xam ni kon du meilleur. <laughs> ah xëy na yooyu ay deuxième bi. déedéet man kay njëkk bokkuma ci rang bi. yéen ñaa ngi jàkkaarloo. déedéet moom mu nekkee la man man daal nekk naa ay vingtième. waaye moom mi nga xam ne mooy meilleur léegi laaj ko kan mooy deuxième bi. <laughs> Eh, ko bu baax a baax moom Mbaye Assane euh, Mesere mi nga xam ne saa su nekk rek moo ñuy soññu ci bi la émission en tout cas yitte bi mu ko jox de gisuma moo jox ko beneen jox ko hmm? yitte jox ko yitte dafa jàpp ni dañuy tóorti <laughs> mi ngi noonu tey nag comme nañ ko baaxoo di defee rek du Diouf daañu ànd ak yéen ci ñetti ponk yi nga xamante ne ni ay wax la yu nga xam ne ni gars yi nekk ci pénc mi ñoom ñoo àddu yëkkati yooyu le kàddu daañu ko dooree nag ak kii di Babacar Fall nekk journaliste fële ci TFM moom nag dafa invité woon ci suba gi. kii di Mamadou Ibra kan mi nga xam ne ni moo nekk euh, jiite journal yooyu nga xam ne daal dinañ leen di tëj muy suñu Lambac stade wax na nag jafe-jafe yi nga xam te ne nii euh, presse bi ñu ngi koy euh, jànkonteel jamono ji jëm nag ci situation u média ak futur média média nag nee na lu tolloog ci juróom benn weer a ngi kenn fayu leen kii di Futurs Médias itam nee na ba tey jii le 25 am na ñoo xam ne jotaguñu jot seen i salaire wax na nag ñi leen di ñaawal ci li ni dinañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo ci kanam tuuti bañ ca noppee daañu ànd ak euh, kii di Souleymane euh, Jules Diop moom nag maa ñuy wax euh, Ousmane Sonko ak leadership bi nga xam ne nii am na ko ak stratégie yi nga xam ne daana koy faral di teg nee na li ni kenn mësu ko gis parce que dafa seen jortu fi mu yemoon ci waa ji daf ko romb di diktal bu ko defee alaaji indi ci ab xalaatam ñu jeexalee ko ak ba Badara Gajaga moom nag mi ngi ñaawlu doxalin bi nga xam te ne ni ñu ngi koy faral di doxalee ci élection wu Sénégal rawatina nag élection législative yi ndax nee na système bi nga xamante ne ni moom la ñuy voté nekkul loo xamante ne ni lu baax la war nañ ko xool xoolaat bu baax a baax ndaxte loolu sax daf ci ànd ak Ousmane Sonko ndax moom waxoon na ko ca jamono yi mu nekk ci opposition bi nee na nag loolu lay dëggal te war nañu changé boobu les système euh, fexe ba mu nekk deux tours léegi léegi daañu ko gën a yaatal incha allahu rabbi dañ koy daal di dooree ak Babacar Fall tey ci subam mu dalal Mamadou Ibra Kane kàddu yi mu yëkkati ñu dem teewlu ko te euh, situation bi garaaw na fi ñu toll nii euh, situation bu garaaw bi moo tax yow nga tëj sa ñaari journal yi di sunu lamb ak stade euh, boo xoolee situation bi ci E-Média juróomi weer jàpp juróom-benn weer kenn fayeeku ko fayeeku wuñu mu ñëw fii Futurs Médias GFM tey lundi 25 am na ñu jotagul. seen seen salaire waa Pastef ñu ngi tëdd fa ñu tëdd kontaan lool mbir mi coxorte da cee am coxorte Pastef ci fexe ba bërëbu tasum xabaar yi daanu ña fay liggéey sëngéem euh, ay boroomi kër ki kilifa yu yor ay njaboot ak i bakkan war leen dundal pour ñu torox est-ce loolu tamit euh, da ñu toog fi ngeen toog fii rek euh, Mamadou Ibra Kane di ko seetaan. non d'abord premièrement xam nga boo. xoolee objectivement maanaam étouffement ay ayca mi ngi noonu alaaji dégg nga kàddu yi nga xam ne Babacar Fall yëkkati na ko mu mel ne nag ñoom la leen nakari euh, ñi leen ko teg du ñenn ñu dul waa Pastef ndax nee na dañoo profité wu ci occasion bi ngir di leen di ñaawal ak reetaan euh, mu nekk kàddu yoo xam ne daal um, loolu la ci moom Babacar Fall. xam nga Babacar Fall. li mu wax nii euh, dem munta deme nii sax demee wu ni ah. waaw xam nga Pastef bi ñu ñëwee ak nëga ci nguur gi defe naa ni euh, dañu wax nit ñi ne leen borub baale boobu nga xam ne ki leen doon baal baalu leen ko munuñu leen koo baal waaye ba léegi wañuñu loxoy kenn ne leen fay leen ne leen da di fay far force ba léegi wañaguñ fi ñoom ñi ñëpp kenn génneegut un franc dem joxe ko pour fay fayaguñu ba war a fayit fayaguñ ba war a fayit parce que boobu ba nëga ni da leen di dégg ñuy wax rek waaye dégg goo fenn foo xamante ni nee nañ ñoom fay nañ dañoo wax ne leen ameel ngeen ameel ngeen ameel ngeen tëjoon nañ fi seen compte sax defe naa sax compte ya sax dara newu ca compte yoo de ubbi na ko parce que compte euh, ñëpp xam nañ raccourci yi ngay da nit di def dañ naan compte bi mooy compte société bi waaye daanaka dërëm du fa jaar yooyu ba état demee tëjit daanaka ubbi coow lee fi nekk ñaan tëj nañ compte yi tëj nañ compte yi après ubbi nañ mm-hmm. donc mbir mi gisuma kenn koo xam ni yéene na Euh, yéene na leen ak coxar parce que man loolu muy wax noonu ne nit ñi dañ leen ko yéene euh, gisuma ko gisuma nit ñi yéene leen ko. ah mais alaaji bu ko moom moom bu ko gisee peut-être yow mën nga koo bañ a gis. ah par contre nag bu fekkente ni bii nag moom ñoom ñoom yéene ñoom ñii di wax moom yéene gi nga xam ne yéene nañ ko nguur gi échec moom gis naa ko. Hmm. ah loolu moom gis fës na. ah ci naka. waaw bu fekkee ne euh, mooy ci seen doxalin façon de faire pour wane ni lépp loo xamante ni nguur gi def saa yu ñu xëyee teg ñoo xamante ni bi ñoo xam ni dañuy jéem a wane ni réew mi doxut. Ah, loolu rek la ñuy wane dañuy équilibré des non non loolu du équilibre quand même dañuy invité waa nguur invité waa hmm, boor d' accord mais ku ne gis na ni ñuy traité invité yi mën naa invité waa nguur gi. mën a invité beneen waar gi mais tey bu ma la invité yow miy dóor ci nguur gi ni ma lay bàyyee nga wax maanaam dangay ngay dóor yat sax ma jàppale yori yat waa nguur gi nag ñoom boo fekkee danga leen a invité fu ñu bëggee wax nga bloqué leen système boobu ñëpp xam nañ niñ koy defee yomb na comprendre nga xam nga GFM li ko dal jàngoro la ju yàgg joo xamante ni da ko war a lijjanti xam nga lu tax. Mhm. ma jigéen. Mhm. ku ne xam na ni personnel ba fa nekk ëpp na loolu moom ñëpp gis nañ ko gis nañ ñu bari ñoo xamante ni bi daanaka ña nga fa di liggéey di fay ña nga fa di fayu te liggéeyu ñaata nit ñoo dem frigo loolu yëpp nag ndax li nga daan liggéeyee ko génne wa ilaa dafa am nu yi daan demee ba tax. Euh, nga daan mën a gérer ñooñu xam nga yooyu yëpp ay question la yoo xamante ni bi tey day nekk ci pénc bi parce que mënuñu Macky Sall daanu nga tàmbali def benn pression doxut nga xëy naan léegi fayuñu léegi lan moo indi jafe-jafe googu. mais bu ba Ndour nee na nee na jafe-jafe yooyu yàgg na fa de ndax. dañ daan am nekk ci problème. Mm, mu dem ci magam. waaw nekkoon na ko jox. pour moom ñu mën a ñëw. waaw léegi mag yaa ngi fi ba tey. lu tere mu deewaat ca magam doon tëgg yi de tëgg yi dafa. tëgg ya ban tëgg yi. Ah. mooy ñëw nga naan tëgg yi est-ce lu ko teree dellu ca magam. Ah. comme que daan am problème. Ah. mu dem ca magam mag ne ko jox ma mu jox ko mu ñëw. Hmm. mag jaan fi ba tey. Hmm. lenn donc moo fi jóge mooy président Macky Sall moo fi nekkatul. loolu mooy jafe ñenn ci presse bi léegi nag nan la yëf demee woon ba tax problème amutoon loolu mooy question yi nga xamante ni moom la Sénégalais yi di posé di ko laaj. du dëkk donc lii nga xamante ni bii moom la Babacar Fall di wax kenn yéenewu fi kenn mu dem di chemin kenn yéenewut kenn nguur gi ñëwut pour fexe nit ñi bañ a liggéey yaa ngi dégg loolu demeewu ni waaye nag bu fekkante ni danga nekk cim réew tamit di liggéey la la waraloog réew ma da ko war a mottali du dëkk waaye immédiat mi toog juróom benn weer fayul nag waaw toog juróom benn weer fayukuwul loolu yëpp mooy même problème yi la rek amuñu woon problème avant que Macky di fi nekk di fi jóge donc bi fi Macky Sall jógee lañ am problème ndax nag Macky moo jëloon alalu réew mi di ko téewee rajo yi wala kii ay question la yu nit ñi di posé mais le fait que Macky dem na jafe-jafe am te ku ne gis na presse bi ni muy liggéeyee di jéem a wañ loxo nguur gi donc defe woon nañ ñi pression boobu buñ ko tegee nguur gi dina dina leen wuyu te man ñii nga xamante ni bii. ñoom laa gis ñu nettali la seen parcours seen jaar-jaar nga xamante ni dangay dégg nit mu ne la président Ousmane Sonko de ba mu nekkee bërëb sàngam moom premier ministre Ousmane Sonko ba mu nekkee bërëb sàngam ñëw naa séq ak moom ci lii wax lii mu lànk ñu lay wax même chose ci la président de la République jomaay di la wax ne la def na lii nii la koy defee soxlawul dërëmu kenn comprendre ñooñu nga xam leen ba noppi bëgg a def benn approche bi ak ñoom defe ne Diomaye président Diomaye taxaw na fi na ne kenn mënumaa santage lu tax parce que man mënumaa chanté loo kenn donc yow nga bëgg ne ala kulli alin kii li mu wax daal amut ñun ñoo yore presse am na noo xam ne buñ ko comporté woo buñ ko doxalee Euh, danañ ñëw far force xam dañoo xamul rek waaye yàgg-yàgg dinañ ñëw allez-y bu continuer noonu dinañ dem ñoom ñëppay tëj hmm. waaw parce que yoon wi ñu jaar baaxut ndax nag yuuxu yi dëgg la wala dañuy yuuxu yuuxulu loolu tamit war nañ koo càmbar parce que attention de yuuxu yi ñuy yuuxu mën naa bañ nekk dëgg ah. ah mais El Hadj ban intérêt la am. billaay tey jii le 25 am na ñu wax ne ba léegi jotaguñu seen salaire. ma jigéen. ñii mën nañ lu ne mën nañoo xeexee lu ne xeexee employé yi ba ci dàq leen ay man lañ ñoo moom société yii yaa ngi dégg bu fekkente ni bi yëf yi nar naa kii dañuy jël yëf yi trans jël xeex bi jagleel ko ñii ay Babacar Fall yi nga xamante ni bi ay employé lu liggéey ñu war leen a fay ñu jël yëf yi teg ko ci seen kaw ko defee ñu naan fayeeku wuñ kërëb kërëb ñu ngi nii naan yow ka nga signé loon contrat moom nga war a amal problème directement. évidemment moo la fayut moom nga war a lijjanti ay mbiram ne ko fay ma parce que man li ma war a def ak yow maa ngi koy def waaye léegi dañuy bëgg a jël seen problème yóbbu ko ci nguur gi. loolu mënul ne parce que fi mu toll nii ni mu waxee nii dafa mel ni lii ñu leen dal du mauvaise gestion boo xamante ni bii euh, ña nga xam ni ñoo yore seen administration ba ñoom waaye dañoo bëgg a jël loolu wékk ko ci ndoddu nguur gi du ndoddu nguur gi. dañu dafa am ay nit yu ñu jël moom journaliste la n'est-ce pas day joxe xibaar. dafa am ñeneen ñu ñu jël ñoo xam ñooy gérer comptabilité ñoo gérer yëf yi ni nga xam noonu la war a doxee ñii yore commercial bi ñii gérer yi ñii gérer recrutement bi ñooñu ñëpp amuñu problème daal defuñu ci lii dara waaye nguur gi la loolu mooy yëpp nit ñi. ak di leen ñaawal. problème bi. Mm. ñoom ci seen bopp la ñañu fal ñoo incompétent buñ leen fayut incompétence bi ci ñooñu la mais du ci état. d'accord donc il faut quand même ñu arrêter. <laughs> mi ngi noonu euh, dañuy ànd ak nag ak kii di euh, Souleymane Jules Diop kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci premier ministre bi di Ousmane Sonko ñu ànd ak moo du Diouf te dellu si. Euh, d'abord Ousmane Sonko defe naa depuis 1988 amul benn parti bu ma sa am bu ma sa gañee gañee dayo bi lu toll nii. Euh, Ousmane nag dama wax ne il fait tout ce qui ne doit pas marcher et ça marche dañu waxoon ne leadership charismatique leadership historique jeex na Ousmane Sonko ñëw démentir loolu nekk un leader charismatique boo xam ne dafa mel ne moo projet Pastef dañu mbubboo mhm. dañu dañu dañu dañu dañu symbiose nekk benn dañu waxoon ne que euh, kenn mënut a mënatut a gagner premier tour ci élection au Sénégal mhm. Ousmane Sonko ñëw en tant qu'opposant mu gagné au premier tour ñu ñëw ñu ne benn lenn lu dul coalition mënut a gagné élection au Sénégal loolu la ñu waxoon Ousmane Sonko ñëw génnee ñaari punkal yu mu àndaloon muy PUR tuuti wu wuñu muy PDS tuuti wuñu ñu ngi leen doon crédité en au moins entre dix et douze pour cent Ousmane Sonko ñëw ne Pastef mooy demal Pastef mu am loo xam ne daanaka. mas gëj naa am depuis bientôt quarante ans dem ak Pastef gañe loo xam ne ku képp ku honnête war ngaa nangu ne jéggi na ëpp na li ñu doon xalaat euh, donc dafa nekk lu nga xam ni il faut ñu nangu ko ak liggéey boo xam ne ci suuf peut-être que nit ñi bàyyiwuñ ko xel mais y a eu un travail souterrain bu ñu def bu mu def moom man xaw ma naka la ayca mi ngi noonu El Hadji Souleymane euh, Jules Diop nag euh, wane na ne nangul nañu waa ji parce que nee nañu yaakaaroon nañu euh, ne wàdd li mu fuy mën mm, ci affaire bi ci moom rek lay yem nee nañ nag gis nañ ni waa ji stratégie yi nga xam ne teg na ko vraiment dañ ko nangul daal suñu déggee kàddu yi nga xam ne wax na ko. Euh, sunu borom loolu la dogal ni mooy li am mais moom lu ci cëram moom Souleymane Jules Diop xam nga Souleymane Jules Diop hmm. euh, dafa nekk nit koo xam ni Macky la dafa falu rek mu ñëw Sénégal laataan mu ñëw Sénégal Souleymane Jules Diop nekkoon ci internet bi daanaka yu bari yi gars yi di def nii ci moom lañ ko gisee. laay donc mu waroon a jariñ Macky Sall ci loolu pour xamal ko ne ko am na loo xamante ni man xam naa ko parce que dund naa ko parce que dem naa ba yëg ni ma sénégalais yi di xoolee ni ma sénégalais yi di suivre comprendre bàyyil xel ci force bii nga xamante ni eh, am na. maanaam doole ji moom dafa waroon a gis doole ji mais dafa ñëw xam naa nguur neex ba fi mu waroon a jariñ Macky Sall jariñu ko fa parce que ni mu jàngatee yëf yi euh, dafa dafa extraordinaire parce que dafa xam li muy jàngat parce que yi ñu tënkoon yépp ba wax ne lii la yëf yi di demee maanaam Ousmane Sonko bi mu ñëwee yooyu nekkatut léegi lan moo tax ñoom ñi bi ñuy tënk li ñu tënkoon ne lii waratu la mën a ne loolu ne maanaam bi ñuy tënk mhm. ñoom dañu calculer woon benn xeetu politicien rek moo mën a am maanaam muy ki nga xam ni dafa jaar ci école de parti jaar ci kii génnee ci partie bu mag wa ilaa parti bu mag mhm. porte la parce que Sénégal noonu la mës a demee parce que am na ay cadre yoo xam ni yàgg nañu def ay partie moom mii cité woon na fi bu ci ku ci mel ni Asie nga xamante ne bi Landing Savané jiite woon ko après moom ak ñoom Mamadou Diop Decroix ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon yëpp ñu nekkoon ay cadre comme ni Pastef demee nii mais marché wul lan moo tax bii marché te yële marché wul xam nga li tax bii marché te yële marché wul boo ko xoolee dafa am loo xamante ni. Euh, dafa fekk sénégalais yi sonn ci politiciens yi. ci nax yi nga xam ni politiciens yaa ngi leen di nax. parce que li dugal ñii ci politique moo leen réussir loo ñu yekk si xam nga muy lan. maanaam bokk ci sénégalais yi nga xam ne dañu yàgg a toog di observer di gis ni réew mi demul mais lan moo tax réew mi demul maanaam ñi ko jiite nekkaluñ fi kenn ku dul seen bopp. Mm. ay nit nag ñëw am jaar-jaar am discours. discours bi ñu koy def tëbu ñu tëb rek ne ràññ mais nekk ci suuf di liggéey ba yéeg ci kaw taqaloo ñi nga xamante ni bii jaar nañ ci yenn kii yéeg génn ci yenn parti yi defuñu ko comprendre nga maanaam yëf yi yow booy xool danga naan lu tax ñu jekki-jekki rek ñi daan gis gisatuñ ñi gisut ñi daawul gis di gis ñi nga xam ne ñoo daan toog di déglu ay nit ñu wax ne ñoom dañu war a toog di déglu xëy di wax parce que problème bi bi mu demee ba nga xamante ni bii ñi daan toog di déglu ñooy ñëw léegi di xëy di wax bëgg léegi ñi nga xam ne ñoo daan wax léegi toog déglu leen booba la yëf yi soppeeku ñi ngay gis ñu bari ñoo xamante ni bii ñi ngi toog ci plateau yi di wax boo arriéraatee tuuti avant 2012 ñu doon toog di déglu rajo yi lañ ci xool li xew. yaa ngi dégg. Hmm. ñooñu bu ñu demee nag ba nga xamante ni bii ñoom ñoo ñëw di wax ñooñu dañoo yàgg a dégg. ba jékki-jékki ne non dootuñu toog di déglu comme ni ñoom Ousmane Sonko yàggee toog di gérer jékki-jékki ñooy dootuñu toog nii di di nekk fonctionnaire rek waaye dañuy dem ngir jiite ji noonu la ñenn ñi jékkee-jékki daal ne ñun dootuñu toog naan dañuy dañuy loolu mhm. dañuy kii mhm. euh, dañuy déglu rajo bi waaye léegi ñun dañuy bokk ci ñi nga xamante ne bi dañuy wax ci réew mi parce que xam nañu kenn gënuñu rafet xaalaat loolu nag dafa am mbir yoo xamante ni bi moo ko indi biñ demee ba nga xamante ni bi ñemeloo nañ nit ñi ñu commencé di dugg wax sa xalaat def nii def na ñu dem ba politiciens yi commencement bi wax sa xalaat la woon ñu jékki-jékki politiciens yi wut jël ñooñu ñu leen di waxal mm-hmm. ci la ñeneen ñi yëg ni ah, kon ndekete affaire yi ñun ndekete war nañoo mën a dem wax ji li nga xam ne mooy sunu xalaat internet nag ñëw internet bi mu ñëwee nag dafa am yu bari yoo xamante ni daf ko dindi donc yàlla dogal tamit ki nga xamante ni kii mooy Ousmane Sonko amee discours nit ñi interroger aussi tamit parcours am jaar-jaaram gis ni kat ku wuuteeg ñi fi daan ñëw la ku wuuteeg ñi daan wax ak ñoom la nit ku wuuteeg loolu la loolu moo lay wane ne la Sénégal bëgg na ku jub ñoom nag dafa mel ni waa ji daf leen dépassé quoi parce que. waaw non boo leen déggee ñuy wax sax dafa mel ni comme si affaire bi ñoom daf leen jaaxal ba léegi. non dina leen jaaxal parce que euh, fi mu toll sax kii ci ñi ximmiliku la mais am na ñoo ne ximmilikooguñ am na ñoo xam ne defe nañu ay sens la ay kërëb kërëb ak lii laa man ni ma leeree woon ni. Mm. Jomaay day gagné premier tour. Mm. wax naa ko. balaa ñuy dem premier tour parce que maa ngi ci dëkk bi gis naa dégg na. ni ma leeree woon ne Ousmane Sonko day gañe élection législative yi majorité bu extraordinaire dana ko am loolu dafa maa leeroon nañ moo tax bu ma mësaan dégg nit di wax di gam-gamle sax damay jaaxle te wax nañ toog nañ fii ma wax ko comprendre mhm. parce que lu ma gis la mu leer ma nañ yàlla dimbali na ma ci loolu toog di la wax loolu mënul nekk parce que li ñu yàgg dégg la ñoom ñoo ñu koy wax am na bu gënoon a muy mm. Macky Sall Abdoulaye Wade ak ñoom Moustapha Niass ak yooyu. Mhm. toog fii ma ne leen Macky Sall day day dem deuxième tour boobu gisuma woon ñoom Tanor que jàpp naa ni Tanor ak Moustapha Niass du ñu mhm. ba ko Idi sànnee xeer ba noppi ñu def seen kii bi jamalaay Idrissa Seck ñu invité ko fii laa daje ñoom kii ñoom Macky yi seen gars yi fii Macky ñu invité ko bu Walfadjri ci émission ñoom Pierre Edouard ma ne gars yi ma ne leen leen lu tax ngeen di invité Idrissa Seck ma ne Idrissa Seck cokkaas boobu mu leen cokkaas c'est pour xam na ni yéen a nekk ci kanamam mais bu leen jiitu woon du leen tudd. comprendre nga maanaam li mu leen doon laaj milliardu Taïwan yi c'est parce que dafa xam ni ñii ñoo ko jiitu mais bu le ko leeroon ni moom leen jiit du leen tudd ma ne leen waru leen ko woon a invité. comprendre nga. Hmm. am na yoo xamante ni bi da nga koy gis mu leer nañ du gisaane du dara. yooyu la mi ngi noonu ayca euh, dañuy ànd ak nag euh, jeexale ak euh, kii di Badara Gajaga ndaxte keroog ci jàkkaarloo wax na nag ñaawli ñaawlu doxalinu élection yi nga xamante ne ni surtout législative yi ni ñu koy defee nee na daal war nañ ko saytuwaat xool ko bu baax a baax ndaxte indi na sax teg ñaari opposition ak pouvoir seen voix yi ñu am ba ñi am nombre de yi ñi am li ci des mu gis ni daal baaxul ñu dem déglu ko te dellu si. opposition am un million six cent mille voix tuutiwul pouvoir am un million neuf cent mille voix opposition topp ko million six cent mille voix loolu tuutiwul bu pouvoir amee un million neuf cent mille voix am cent trente députés opposition am un million six cent mille sénégalais yu leen voteel am trente cinq députés y a problème système bi ñuy voté législatif baaxul te du man rek maa ko wax de classe politique bépp ci juboo Ousmane Sonko da ko bind ci livre am ni ñun ni ñuy demee législative baaxul mu ni nous allons réformer le scrutin pour def ko un scrutin à deux tours parce que lii dafa xeew wi suñu génération ñun ñoo war a xeex lii doon dernière élection bii doon élection législative ci benn tour c'est notre combat à nous tous politique pouvoir comme de l'opposition et mi ngi noonu Alaaji moom daal nee na nombre de voix yi ak euh, nga gis euh, ñee am 130 ñii am euh, li ñu am matu ak 40 députés te li ñu rawantee daanaka boo seetee ba seet daal xam ne bariwul jot na nag ñu xoolaate affaire yi bu baax a baax bu ko defee sax deux tours lañ koy def ñu xam mbiri daal ñu ko gën a réformer nee na Ousmane Sonko itam bindoon na ko. waaw xam nga Ousmane waxoon na ko. waaw ba mu koy wax moom lu mu ci waxoon. moom Badara mu ngi fi woon. loolu passé nañ ko nan bu kii waaw mais moom moo wax loo xamante ni bii du tey démb la woon de. lii la <laughs> bindoon na ko daal. waaw mais moom lam lu mu ci waxoon. ah xam nga seega tey nga ñëw tey ne usmaan Ousmane ko waxoon na ko. Hmm. donc da ngay wax ni. li mu waxoon. yow li nga na ko def fi mu toll nii. maanaam loolu lay dégguloo nit ñi quoi maanaam na ko def fi mu toll nii. Hmm. waxoon na ko. mais jamono bi maanaam fi mu dugal Ousmane Sonko bul defe ne da ko faa dugal pour tàgg ko da faa dugal pour tiiñal. ah waaw. daan ne ko lii may wax nii sax waxoon nga ko. ay alaaj nu may dégluwaatal da koy da koy wax pour tiiñal ko ne ko lii may wax nii waxoon nga ko mais man dama koy delloo question ne ko ba mu ko waxee moom moom Ousmane Sonko ba mu xamee ni waxoon na ko moom lu mu ci waxoon ak émission yi mu def yépp lu mu ci waxoon. question. Hmm? lan la ci waxoon xam nga waroo wax ne Ousmane Sonko waxoon ko dafa waroon wax wax naa ko waxoon naa ko te sax man ak Ousmane Sonko bokkoon nañ ci gis-gis ba wala ba mu ci waxee waxoon naa ci lii appuyé woon naa mbir mi mais bàyyi ba tey hmm. waa ji gañe nga war a ñëw félicité nga déglu ma waa ji nga war a ñëw félicité nga bañ koo félicité hmm. daal di tegaat yeneen mbir wane ni yëf yi ni mu demee nii waru ko woon a demee parce que ñii waruñu woon a am lii maanaam daf ko wax benn façon inte façon waxin bu intelligente bu intelligent la ko waxee ah ah a demee nii hmm. daal ne opposition am na un million six cent mille voix. ñii am un million neuf cent loolu lim lay déggloo ci wax ji. mooy li ñii ëppalee ñii bariwul waaw xam nga kii dafa dajale moom. quarante listes jël benn liste mu ne benn liste bi li mu ëppalee quarante listes yi boo ko waxee noonu xam nga day day yéeme <laughs> yaa ngi dégg mais du ko waxee noonu daf la koy jël tënkal la ko ne la opposition ak pouvoir ne la li ko pouvoir ëppalee opposition tuuti la bu ko defee léegi boo xoolee de ah pourtant différence bi garaawul de maanaam ni mu la ko dégguloo la da naan comme ñi un million six cent ñi ñee duñ ko ñee groupe la ñoo xamante ay coalition ak ay kii yoo xam ne bi plus de quarante liste la kee nekk kenn ëppalee quarante liste yi xam nga boo ko jëlee noonu di nga ne ah. très bien tax yi lu teg rek nga teggi ko. non day tappale technique gu tappale laa lay wan dama lay wan c'est que technique yi <laughs> technique yi dama ko bu ma ko doon def mën naa ko lool <laughs> su ma doon tappale tappale yi yaa dégg. gars la dégg. technique la quoi maanaam ci gis lay déglu ni lay gis loo. Mm. léegi yow daf lay connecté ci benn kii boo xam ne dangay gis ñaar te fekk duñ ñaar 41 liste la. ñu dem mm. nañu limal moom xam nga dafa jël Pastef rek li am. Mm. léegi nañu jëlal kenn ci ñooñu lan la am ki ci ëppale lan la am ci voix nañu ko jëlal bu boobaa ngay soo ko xool différence mais lii muy def nii technique gu caaxaan la. ay na xam ni lii du jàll quand même. waa léegi li mu wax tamit peut yi war nañu. waa loolu xam nga réforme yaa ngi ñëw xam nga tey euh, moo tax ma ne la li mu wax noonu dafa wax pour tiiñal nguur gi ci li nga xamante ni bi fa lañ jëm réforme yaa ngi ñëw na déglu mais du caagi ni euh, ci waxam ji lay sukkandiku pour def ko mais en tout cas xam nga am na loo xamante ni waxoon nañ ko kon donc léegi ñu ngi soog a commencé di nangu li nekkoon ci projet beeg yi ñu daan wax lu leen ci arrangé ñu nangu ko di ko fàttali. waaye loo xamante ni bii tey <laughs> arrangé leen duñ ko loolu quoi yàlla baax na. alaaji yow. Mhm. ay ca ñu bàyyi la nga tàggatoo. Ah, ñuy joxante dig daje incha allah ci kàttanu borom bi beneen altine. ci kàttanu borom incha allah xam naa gars yi moom dinañ ne waa ji moom il faut ñu jug ci moom ndax mënuñu lu ñu teg rek mu teggi. waaw ah, te xam naa ni foofu nga nar a ak ñoom. mu mhm. ngi noonu ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci xalaat yi rafet yi nga xam ne joxe nag ko fi jaajëfal itam képp ko xam ne rek yaa ngi ñu doon ah, bàyyi xel ci solution info. di gërëm bu baax a baax moo du Diouf euh, Abdou Toba ak Abdoulaye moo du nag alaaji nee na tey la lundi bul fàtte ni tey la lundi ñu joxante dig daje beneen altine incha allahu rabbi